ba ubbi place wetu impôt et noonu la xamee Amadou Ba di ràngu ay ay terrain Amadou Ba di ko jox muy jaay loolu moo ko def milliardaire bu dee Tahirou Sarr moo doon milliardaire bu dee Farba moo doon milliardaire te kenn ci ñoom mënu liir turam jànguñu bu dee ñooñ ñoo doon milliardaire donc waxuma la Amadou Ba bi leen doon jox pour ñu dem jaay ñoom ñoo ay multimilliardaire lañ donc il faut que ngeen xam ni ngeen mun a jàpp ni ñooñu tekkiwuñu dara kuñ ci jox lekkal politicien bu leen jox warax leen wan leen na res ak jàmm dama ne ñi nga xam ni ñoom duñ def lu dul achat de conscience jàppee leen yéen ay xar jàppee leen ay bëy jàppee leen ay mbaam xuux Sidiki Kaba fu nekk nii ay camion la ga Tamba ñi gis nañ ko ay camion la gaare buntu këram def ci boisson indi ay camion def ci Jakarta fas yéene koo jox maa ngi wax waa Tamba boisson bu mu leen jox naan leen gâteau bu mu leen jox yéey leen jakarta bu mu leen jox yóbbu leen waa yéen xam ngeen torox tàngee gi ngeen dal yéen xam ngeen de Tamba bokk na ci dëkk yu gën a torox ci kaw suuf te mérité wu leen ko ay nit yu baax ngeen dëkk ba poussière na xonk na xasaw na tilim na ñaaw na bon na dara amu fa liggéey dara amu fa Tamba dafa toroxa toroxa toroxa torox ba buggee xam vraie réalité wu turu torox nga dem Tamba amuñu dara dara dara ba dara booloo jeex Sidiki Kaba ma nga fa depuis Abdou Diouf Sidiki Kaba ma nga fa di taxawaalu ba ci maire Diallo bu fa newoon maire ba kooku jóge fa ba mu ba Souti Touré ba ci ba suñ jonn yàlla Sidiki Kaba nga fa paa bu ñàkk jom bu ñaq fayda na ngeen bëgg seen bopp bu leen joxee lu mu leen jox camion gaa ngi noonu mu gaare buntu këram ay camion boisson camion jakarta camion lekk ak naan dafa jàpp ni ay xar ngeen ñëw na taxaw nag fas yéene indi ngooñam ak ay ripaasam bugg leen ko jox lekk leen lépp ñuus ko ci bureau de vote yi ba mu nekk nit noq ko fa ba bu gisatee waa Tamba da leen respecté du def dara ba mu des lu dul élection mu ñëw dëkk baa nga tàng tàng tàng kenn xamul lu muy dëkk baa nga sonn sonn sonn kenn xamul lan la donc na ngeen am fulla muy Tamba muy Kaolack muy Kolda muy muy Ziguinchor Ziguinchor moom kenn waxatu ko ñooñu ay suppa ndaanaan lañ noonu moom kenn du leen jam naa muy Kaolack muy Tamba muy Kolda muy euh, euh, Kaffrine muy et cetera et am leen seen fulla seen fayda ay sew di sow gënuñu leen nday gënuñu leen nday valoriser leen seen nday yi valoriser leen seen yaay yi valoriser leen seen namp seen meewu yaay yi wane leen ni seen meewu yaay yi dafa saf dafa saf suukar seen meewu yaay yi dafa original wane leen ni kenn nampalu leen ci ay ay pëndaxu buy wane leen ni ay nit ngeen ñooñu gënuñu leen ci nday gënuñu leen ci bàyyi faale wuñ leen taluñu leen saa yu élection jotee ñu ñëw taxaw pour fooye leen am leen seen fulla ak seen fayda muy Kédougou muy Fatick muy Fouta muy Tamba ak am leen fulla ak fayda nit da ngay sa bopp da ngay sa bopp donc na ngeen taxaw ci lu mel noonu communes yi département yi communauté rurale yi et cetera et cetera na ñëpp taxaw vigilance sécurisation des votes taxaw nag assisté fépp ñu am fa ay bureau de vote fépp ñu am fa ay représentants ci bureau de vote yi fépp ñu taxawee fépp fatt fépp comme nu ko xuree ci caam di waxee fatt fépp pour muy clair anti système mooy xeex ak système pour une première fois dans l'histoire du Sénégal l'antisystème doo gagner le système Sénégal antisystème musu fi gagné antisystème musul gagné Sénégal Senghor la c'est le système tubaab yee ko fi bàyyi woon Senghor def ba mu neex ko mu jox Abdou Diouf c'est le système Abdou Diouf def ba mu neex jox ab Wade c'est le système Ablaye Wade jël recycler ci ci ci ki nga xam ne moom mooy euh, abdu Diouf jël yenn yi rëkk ndig ñenn ñi tëj ñenn ñi c'est le même système rey dem ñëw bëgg a jox doomam mu continuer peuple bi bañ Macky Sall le même système jóge fële jëlaat ko Idriss Seck ñëwaat c'est le même c'est le même système Idriss Seck Macky Sall Abdoulaye Wade Karim Wade Abdou Diouf Maguette Wade et cetera et cetera Senghor et cetera et cetera donc c'est le même système léegi foog ñu break système boobu noonu foog ñu jëlee fi système boobu ñu xeex bu dindi système bi système boobu mooy ni ñuy faree ni ñuy faral di doxalee doxalin la te doxalin boobu bu ngeen juddoo ba léegi moom ngeen fi mus a gis mooy Amadou Ba c'est le même système c'est la continuité ba bañ na ko ba nëbbu ko nee na damay continuer système bi système bi mooy fen sàcc luubal jënd justice bi yàq suñu askan yàq justice bi bombarde pouvoir yi corruption ñoom Moustapha Niass ak ñooñu ñëpp ñu ngi ci biir ñëpp Amadou Ba Amadou Ba ne damay ñëw continuer loolu Macky Sall dafa rey quatre-vingt-six doomu aadama tëj de centaines de milliers de sénégalais moom Amadou Ba nee na moom dafay fas yéene continuer loolu mooy maanaam dama ñëw pour rey leen ñëpp dama ñëw pour yeggali sàcc gi dama ñëw pour yeggali corruption bi nga xam ni Sénégal bokk na ci les vingt et un pays les plus corrompus ci kaw suuf mu ne moom day ñëw yeggali ko corruption bi day yeggali disparition mystérieuse yi parce que ku ñëw ne day continuer mooy damay continuer dinaa fi yow dina am keneen ku fi doon Fulbert sàmbu ci yéen dina am keneen ku fi doon Didier Badji ci dina am keneen ku fi doon François Mancabou ci yéen waaye dina am keneen ñu fi doon xale yi ñu rey moom leen day ñëw pour continuer kan moo ñaan mu continuer koo xam ni dafa ñëw ci ay dëj mu ne dafay ñaan mu continuer ah les malversations financières les dérives autoritaires banditisme d'État scandale foncier et financier et cetera et donc y aura d'autres Pape Abdoulaye Touré ñaanuñu yooyu ñaanuñu yàlla loolu Amadou Ba man musuma tiit ci moom parce que xam naa ni wax naa ko waxati ko nee naa leen Amadou Ba munul gañe biir këram Amadou Ba munul gañe biir këram même biir këram amu fa kàddu et je vous bien ay biir këram amu fa kàddu ñaari jabar la am ñaari jabar yi dañ leen séparé kii mi ngi dëkk Lagon kee mi ngi dëkk euh, Mermoz ñaari jabar yi duñu tuddante duñu jaarandoo taal ñaari jabar yi musuñu taxaw photo premier jabar ji reconnaîtreul deuxième jabar ja donc moom munul sax dubale ñaari jabaram bon na soxor na sàcc la kan moo ñaan kooku mu jiite la ku munul sax rassembler sa biir say ñaari jabar mais kooku kan lay jiite kon tey élection bu amoon biir kër Amadou Ba du gagné biir këram. bu dee njabootam kese kese kese du gañe munu sax dajale njabootam kooku munul parcelle bii la gars yi tey euh, la coalition Diomaye dajale des centaines de milliers de sénégalais donc moom munul gañe foofu amul feneen fu mu mun a gañe te ab mag laa dafay ñuulal euh, ñuulal rek mais magum jëmm la moo mag Macky Sall amul débat moo mag Macky Sall nga gisee noonu ak tuuti waaye muy dóori moo mag Macky Sall grand frère u la dafa torox rek boo toroxee doo tekki dara torox mooy comme ñëw Macky Sall di ko toroxal dàq na ko fi trois ans toroxal ko fi tottu Amadou Ba dugg ci biir di infiltrer di jënd ay nit parce que yor na xaalis ba yor sàcc na ay milliards milliards et cetera et cetera mais dafa torox rek mais moo mag Macky Sall ah Amadou Ba moo mag Macky moo ko magee benn at xaw ma ñaar donc du booy du xale magum jëmm la mais amul dafa ñàkk fayda sàcc la dafa ñàkk fu la ñàkk fayda moo tax ku noppi <laughs> bu jàppoon sénégalais tey di dina leen def xar da ko mën a la Amadou bu fi toogoon yàlla ci yàlla musal te du musaam gars yi danañ puub di ko lekk ndax en bu mu leen dencal ndax yëfu dëmm yu mu mun ndax mu capable coupable toog ne tekk loolu kooku moom man musuma ko tiita parce que munu fi gañe kenn munu gañe këram munu gañe buntu këram munu gañe mbeddam munu gañe koñam munu gañe parcelle amul fu mun a gañe même bureau de dañ ko cee ñuus élection yu musa am dañ ko cee ñuus ñaanuñu yàlla ñaari waaye sa waay yow yàlla muy république bi toll foofu dem ba torox ba république bi am ñaari jabar yu jubawul ci biir palais mais est-ce que vous imaginez loolu noonu est-ce que vous imaginez ab président boo xam ne ay jabaram sax jubawuñu ñaar ñooñu wax buñ leen dajaloon fële àdduna <laughs> mais palais bi day tàkk palais bi day tàkk parce que ku ci nekk ci ñoom dala dala tàkk palais bi day tàkk bu booba donc kooku kooku c'est un irresponsable ñaanuñu yàlla loolu yàlla bu Sénégal torox torox koo xam ni bay mujj am président bu yor ñaari jabaram yu jubawul yu bokkul benn kër duñ tuddante du jaarandoo ci ab palais yàlla nañ ci yàlla musal kii di Guinéen kee kee di Mauritanie encore pour bañ a fàtte kii di Guinéen ay étranger la takk ay étranger la takk kii di Guinéen kee di loolu choix am la moo xam waaye ñun suñu pale ñu yàlla te yàlla bu mus a am yàlla nañu yàlla muccal te musal ñu ci ab pale bu am benn Guinéen ak benn Mauritanien ci suñu pale sénégalaise suñu pale sénégalais président ba ñiy naatable ñi naan guinéen la ñi naan sénégalais la benn brique amu ko Fuuta benn brique Amadou Ba mënul wax ni fii laa am kër amul benn brique Fuuta te mu newoon pré euh, directeur général impôt et amul benn brique Fuuta musul reconnaître Fuuta moo tax bu ñu wax ne <laughs> waa ji guinéen la mënu ko dindi à de quatre ans la jóge Pita ñëw à de quatre ans ñoo dëkk Grand Dakar ñaari tali ci këru barak boobu barak yu bari Mbàkke yu fay moo ko